asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw ñu ngi ñu ngi sant bu baax a baax xanaa Cheikh Modou Moussa dafa mel ne moom li jaroon lépp wax na ko. ñu ne ñu ne nga yokkoo baax na na noonu. mu dafa mel ne li jaroon na wax lépp Cheikh Modou Moussa wax na ko. xanaa dañuy jëfe ndigal rek ni ko Serigne Cheikh Fall Assou Ndiaye wax ñuy sant bu baax a baax ni ko seex mu Moussa waxee rek si turu jëwriñu Cheikh Fall di sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda si bëccëg rek ñëw na fi Cheikh Amadou Bassir sëriñ Amdi ñëw na fi wax ne liggéey bi kat fasul yéene poussière bii nga xam ne moo fi jollee mu bañ koo mëq ba taxoon mu ne faaw dana ñëw ba poussière bi dugg ko dugg ak dënnam mu soog a delluwaat waaye ñëw fi nag gis murid yi nga xam ne ñoo wuy si woote bii nga xam ne Sëñ Tuubaa woote na ko te nga xam ne kenn doyu leen si loolu Cheikh Ibrahima Fall ñëw fii si ndigal Sëñ Tuubaa defal ko defal Sëñ li mu bëgg si bërëb bii mu ñëw nag fas yéene bokk si murid yooyu yi nga xam ne ñoo ko jëf te moom moo joxe ndigal li wala si moom la ndigal li jaar kon loolu ab so la si nun taalibe ñu siy sant bu baax a baax xanaa jotti rek sant sëriñ bi di ko seereel Cheikh Modou Bassir ndax lii ñuy wax Cheikh Modou Bassir Cheikh Moustapha Cheikh Modou Moussa wax na ko waaye li ñuy wax Cheikh Moussa ak njabootu Cheikh Fall bi loolu sëriñ bi mooy kàddu yi nga xam ne moom laay fas yéene jottali te di ko seereel Cheikh Modou mi nga xam ne moo fi ñëw si turu Cheikh Modou Mountakha seriñ bi nee na mu ngi lay seereel yow Cheikh Modou Bassir ñu njabootu Cheikh Fall gii. mu ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi la mi ngi lay seeral ni amul lenn ndigal lu mas a fi moom jóge si Serigne Touba te ñoom ànduñu ko moom ba na ko Serigne bi bëggee ñu amee ko noonu muy seer ni ñëpp teew nañ ñëw nañ xam ne yéene lañ ñëwee ak pas-pas ak yitte la Serigne bi waxoon ne lépp lu Serigne tubaa digle. bu ko digalee kër Cheikh Fall lay Cheikh Fall dina ko def na ko Sëriñ Tuubaa bëggee loolu yi nag tey jii rek fàttaliwaat na ko fii wax ne moom ak njabootu Cheikh Fall bi dara andiwu leen fi dara bàyyiwu leen fi loolu jëfe ndigale Sëriñ Tuubaa li Sëriñ Tuubaa bëgg faaw day am te ñoom bokk na ci nga xam ne ñoo koy amal kon sëñ baa ngi seeral Cheikh Modou Bassirou cant ko mu sant njabootu Cheikh Fall di sàkk fi moom it tawfeex gii leen Sëriñ Tuubaa defal ak Cheikh Fall. ci booloo gii nu booloo àndandoo am genn bëgg genn pas-pas muy sëriñ bi sëriñ bi doon leen a dëgëral sëriñ bi doon leen kattana kattanal ba ñu jekk ko nu ñu ko bëggee ba waxtu lu ndigal lotee ñu mën koo jëfee na ko sëriñ bi bëggee Cheikh Moussa wax na ay cant diggante sëriñ bi ak njaboot waaye sëriñ am ni nee na mi ngi sant mbooleem koo xamante ni kii def nga sa yitte si jëfandikoo lu sëriñ Tuubaa li nga xam ne jaar na fi moom mi ngi lay sant di la gërëm dina ñaanal yàlla sama borom defal la tawfiix te taalibe yi na seen xel yëpp dal na seen xol yëpp sedd ndax ngërëm rek la ñu sàkku te am nañ ko am nañ ko si kii doon la génnoo Cheikh Amadou Basir mooy gërëm sëriñ Amdi waaye sëñ Amdi ñun moo ñu gërëm sëriñ bi nag jottali ngërëmam jottali na ngërëmam si mboolem taalibe yi ñu ngi leen di ñaanal tawfiix di sant bu baax ñi nga leen booleeloon Cheikh Amadou Basir wala ñi nga xam ne Cheikh Amadou Mountakha moo la boole woon ak ñoom. ñu jaar fi yow ñëw si liggéey bii am si ab taxawaay sëriñ Youssou Diop a ngi toog waa Hizbut Tarqiyyah Cheikh Modou Mountakha moo leen santoon bis bu ne ñu togg ay ñam yu mel na mu war a mel mu andi ko fi waxtu mu ne ñëwee jébbal nañ ko Cheikh Moustapha mu tasaare ko si murit kenn xiifu kenn maru fi Cheikh Abdoulaye Kam yi nga xam ne moom la sëriñ bi jox dëkk bi moom it ndigal la ko sëriñ bi joxoon ne ko lu di jumtuwaay te mu jàppandi la si loxol Cheikh Fall si liggéey bii ma leen sant moom it taxawaay bu ñu si war a am na ko ba mu mat sëkk loolu man ñu dama see mat seere li si des nag Cheikh Moussa wax na ko kon nag li nga xam ne moo si dolliku mooy Serigne Habib Mbacké moom Serigne Fallilou jiite Touba sa kanam keroog bi ndigal la jibee Cheikh Modou Moussa mii moom la Serigne bi joxoon ndigal loolu ñu yëgal ko ko waaye sa ba nu koy tàmbalee dafa ne mboolem luy jumtuwaay bu nekk si Touba si kanam bis ne na nañu xëy ba ba liggéey bi ak noo nee nag lañu ko defee dara desut mboolem pen mécanique yi ba si caterpillar bi nga xam ne moo fi mujj tey di di tallal ngir ngir ngir ngir ñu am ay ay niveau tey ji fi la yem seen camion yi nga xam ne camion benn te bu ñu fi ñëwee mosuñu maa laaj gasoil bu ñu def si seen oto yi ñaari yoon rek laa laa jox chauffeur yi gasoil te laa laaj ñu ma ko maa leen ko jox sama teewu bakkan waaye bu ñuy ñëw Cheikh Mouhamed Bachir da leen di dugal gasoil ba bañ cee def ndax am na seen liggéey fi mu war a yem waaye danoo def ba def lu jéggi la nga xam ne fa lañ war a yem ci yéene ju ñu am ak pas-pas ak yitte ju ñu am ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi xam ne benn liggéey gënu ko mat kaalaama naa leen nag Sëriñ Amdi Fall bi mu ñëwee si suba nee naa ko ñii de sëriñ bi leen ndax ñu taxaw temm lañ ngir bëgg sëriñ bi am te bëgg sëriñ bi suñu tawféex la ñun bi yëpp ndax suñu tawféex ñu si jëfe ndigal bi dabu bëggug loolu rek mooy suñu tawféex ndax moo la ku jaayante rasulullahi jaayante nga yàlla suñu borom kon loolu foofee rek la fas yéene doon taalibe bi rek di déglu ndigalu sëriñ bi rek dara rek indiwuñ ci bàyyiwuñ lu dul ndigalu Cheikh Modou Mountakha di ñaan ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall ci doole Cheikh Fall ci doole njabootam bu baax yi Cheikh Moussa doon lim Cheikh Modou Mountakha yàlla na fi yàgg te lépp lu mu naan yàlla ko suñu borom àttal nga kattanal ko di la ñaanal yow Cheikh Modou Bassirou ni la sëriñ Saliou wax saa su ne waxtu wootee na ci kanam njaboot gi rek da nga leen a indil ndigal mbaa nga indil leen ak cant ñu sàkku kon na la yëpp a ngi lay ñaanal waxoon naa la ko bëgg dem murid yëpp a ngi lay ñaanal sa taxawaay yàlla na sax dakk yàlla na saa borom la fan gudd ko wér sa wér gi a na doon aw doj barke maam Cheikh Ibrahima